Sitor Ndour, euh, je suis arbitre euh, international de lutte. Euh, fatena, naa kenn ki daal laa fàttaliku Zal familial je me rappelle mais fatena adversaire am c'était en le est-ce que le 4 avril 1996 en tout cas mooy jouru combat Tyson Moustapha Gueye waaw benn mbëru Zal familial la dama fàtte nag ki mu taseloon la fàtte. waaw loolu loolu yàgg na de mais bëriwul comme comme dab comme ni ñuy kaas nii rek euh, somme bu ndaw la euh, te loolu la année boobu la sax quatre vingt quatre vingt quatre vingt seize boobu ah bëriwul man est ce que du woon vingt mille sax xaw ma de vingt vingt mille franc la daa mel ni vingt mille franc la waaw non bëriwul musul bëri parce que étudiant laa woon xëy na lii ma nekkoon étudiant mais euh, mbégte bi du woon xaalis bi. Euh, le fait que nga doon gis ay ay acteurs ci milieu bi nga ñëw ba bokk ak ñom ba bokk ci action bi lool mo ci gënoon am solo mais du won xaalis bi en tant que tel. pas compliqué mais lamb bi gënoon bëri ciow mais compliqué man dal <laughs> lamb ciow rek waaw moy euh, Tyson euh, Bombardier ak Moustapha Gueye. Euh, Baboy il doon maa maa surtout les bu 97 2007 du moins euh, Tyson qui euh, Bombardier waaw. Marque marqué na trop parce que après affaire boobu si Ouais, en Allemagne. waaw man Mamadou Lamine la euh, bi na parce que boobu ñun ñu ngi euh, drapeau de chef de l'État bi amoon Dakar ñu ñëw di sétane légui moy ko xamné da doon fooyee bëre il était très technique dalay won ginaaw ginnaaw sax nga siffle mu daan wala nga yëkëti ko ba ci kaw muy rétane légui dafa nekkoon ko xamné daf ñu marqué ñun en tant qu'étudiant euh ki ne bon xam nga nag lutte simple la woon xaw ma woon écurie bi mais xamna dal euh, ci région yi parce que année bobu sax mom ak magam ñoo ñëwandoo woon mais il était extraordinaire bon man en tant qu'arbitre peut-être kawoo dal ay kawoo moma don moma don ma xaw marqué tout et c'était gênant dal le risque yi ci am da ngay tiit lol dal lol dal am na ci mais presque mun né euh jël yi gën spectaculaire ci combat yi ndaw yi la yi ñi wax combat yi ndaw waaw yoy dal man fa gis technicité yu extraordinaire yenn rapidité yu extraordinaire prouesse technique yu xamné dafa jéggi dayo dal waaw waaw bëri na c'est que du lépp la ñuy wax mais ñun suñu bopp dañuy waxtaan suñu biir am ay affaires yu bëri yu ñu gis ak affaires yoo xam ne gars yi dañ koy def mais ñoom ni ñuy defee ñun noonu la ñuy defee voilà donc euh, comme mbër yi ñoom dañuy préparer dal sa kaw waaw gisoo mbër yi léegi dañu yore benn bouteille bu ñu bind arbitre waaw léegi <laughs> ñun rek yore ñu bouteille bu ñu bind mbër mais ñu ngi sóoraale loolu yëpp parce que ñun fii lañ dëkk nous sommes des sénégalais te gëm nañ ko xam nañ ne am na waaw man de lenn daal làmb démb ak tey bon pratiquement léegi euh, su dee da nga jël bëri dóor bi bëri dóor boo ko jëlee léegi day jël temps trop trop trop parce que waa préparation bi dafay yàgg xoolal ñun heure bi ñu ñëw stade da ngay ñëw stade yenn saa yi ay 13 heures nga toog fa ba 22 heures yow arbitre ba 22 heures mbër itam même si am na mbër yoo xam ne dañuy ñëw 9 heures ci suba teel bi ba 22 heures ñu ngi dox ñu ngi jaabante ñu ngi def ay affaire ah lol de xawmako ay fii da nga don gis ay temps nga don gis ben mbeur boo xam day am 5 combats ci saison mais les gisatoo ko léegi mbër yi benn combat la ñu am mais ay ay ay bombardier ay ki num ci Baboy mais dama don am gis année yo xamne ne mais don am ay 3 combats mais léegi pour nga gis ben mbeur bu am 3 combats yu lol c'est rare mbër yi ndaw yi sax léegi bëggatuñ té pourtant lol lu len arranger la euh, nek ñun japp nañ ci sax parce que bo xolé nombre combat ni mu yokkoo ni ci lol lañ ñu don wax il faut gaay di bëre mais nak euh, vraiment war nañ war nañ war nañ war nañ mëna def lool wa loolu nak mom vraiment dina métti man en tant que parce que comme que acteur là ba léegi cité tour day xaw doy war quoi mais su ma ko au niveau euh, de la lutte africaine ak euh, sunu équipe nationale de lutte bi ils sont extraordinaires. ay xam nga tey ji am na ci ñoo xam ne tey boo boole boo boo ci waxee mun na niroo leneen mais dañ nekk ñoo xam ne icône lañ exemple lañ ci ci lutte africaine fi mu ne ni boo demoon Niger foo waxee seen tour rek nit ñi dañuy kontaan quoi mais nii nii présentement cité ci kenn day xaw a doy waar ci man <laughs> waaw. ñu